di jaajëfalaat bu baax yéen suñu internet di leen nuyu ku ci nekk turam ak santam yéen ñuy seetaan ci réew meeg bitim réew di am contentement jano ci noonu damay nuyu Assane wàllu ma fegool ñu daal di àndandoo jukkil leen li gën a fës Assane nuyu naa la Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo yéen pour indil leen li gën a fës ci yéen kaa yu làmb ci revue bi seen unisé d'or moo leen koy may moom ñu indil dir sa cholestérol neexu consommé daa ciy tegaat nag asan waalo spaghetti Isadore. oui macaroni Isadore. Mhm. vermicelle Isadore. oui ñu ne déete waay asan kii ni Assane Ndiaye ne du doy dama ciy teg ataaya boo lekkee ba suur teg léwal deuxième daan tarxiis. yéen yéen jigéen ñi moom Assane Ndiaye defal na leen affaire quoi. bien ñu teg te également au ndox mi nga xam ne nii moom moo bees ci marché bi. ndox au sedd na neex na neex na naan te oyof na waaw ndox moo xam ne ni instant yi euh, nit ñëpp moom la ñuy coow ci place yi ci marché yi foo dem fekk ko fa kon dem leen jëndi ko au Kayar ngi noonu. mu ngi noonu nag ñoo nekk au Toba Université au kenn du ñoom ci même réew mercredi 26 mai 2021 journal suñu làmb moom xëyee ci xoto bu njëkk kii di Eumeu Sène ci protège prochaine sortie ba mu nar a génne fenee ci arène nationale lam ci xamal nag mooy amateur yi bu ñu ko gisaatee rek asan daay fekk mu pare. dëgg la Ndeye Mbacke Eumeu ginnaaw bi ko Lac de Guiers daane le 4 avril ba le passé ñi ngi koy wax nag ay combat combat yu bëri ñi ngi koy dox mais dara sotteegul euh, keroog nag nit ñi fekk nañ ko arène nationale lu mu fa wax nee ne moom instant yi mi ngi am ay sollicitation ñu ngi koy wax ay combat mais pour le moment dara sotteegul bés bu paree rek dina euh, génn wax ak nit ñi ñu xam ci ban euh, adversaire moom la war a bëreel ci prochaine Euh, sorteem bi incha allah. borom taasi nga moo wax loolu borom def du wér kooku di Eumeu Sène loolu la xamle ci journal bi kan jëm nag mooy Fallou Faye Fallou Faye mi jiite Bawal Bawal mbooloo Mbaye Assane Waalo mhm. la may xamle ci journal bi nag mooy kii di Tapha Tine tiitul benn yoon kii di Boy Niang numéro 2. dëgg la ndax Boy Niang dëgg la. dëgg la Ndeye Mbacke Fallou Faye moom mooy président écurie Bawal mbooloo li wax nag nee ne euh, Tapha Boy Niang 2 du risque. ci Tafatine nee na xam na li muy def mbër moo xam ne nii yàgg na affronté ay ténor donc euh, Boy Niang daal du risque ci moom wax na également ci euh, combat bi nga xam ne nii doxoon na ci Balla ak euh, Tafatine nee na combat boobu défaite boobu ñoom waa écurie yi Bawol mbooloo ni ñu ko géré moo baaxul woon moo tax après Tafatine amoon problème pour amaat ay combat ca loolu nag ginnaaw 21 ans ba mu bëreeg mag ja kii di Abdou Diouf daal di nay waaj a journal bi la monsieur Rémy Samb laaj nag mooy ndax 1-1 lay nekk wala 2-1 Assane. dëgg la Ndeye Mbacke Abdou Diouf mi ngi dajeeg woon euh, Gris 2 le 12 avril 2000 donc euh, ren am na vingt ans war mu war ci dajeeg nag gride 2 loolu kañ lay am le 4 juin euh, lu boobu combat lay am donc mu dajeeg mu daanee mag. war a dajeeg rak mu war a nekk combat boo xam ne nii revanche lay nekk ci Gris mi nga xam ne nii day dajeeg ko xam ne nii dafa daane woon magam ca noonu nag ginaaw ba mu daanee garga numéro 2 ñu ne déeta waaye mu daan assurance daal ci teg góor a soog Tyson 2 nag la mu bëgg passé à 4 ci nga xam ne mooy franc bu passé na boolu suñu njaago or boobu. dëgg la Ndeye Mbacke combat boobu mi ngi war a am le 9 euh, euh, le 9 juillet juin no waa Vox Arena ñoom ñoo ko tëgg. comme ni ko journal suñu laa waxee ginnaaw bi mu daanee Garga 2 assurance ak Gorosok euh, kii nag di Tyson 2 mi ngi war a jëfalanteeg Franc mu war a nekk quatre victoires yoo xam ne nii war na ko mën a tegale revenir na également ci palmarèsu euh, kii di Tyson 2 nee na Tyson 2 am na 18 combats am na 16 victoires 2 défaites guy gi ak Elton rek ñoo ko daan moom daan jot na daan nga mbër mi nga xam ne nii mën ci teg ci mën nañ ci boole Jal Diop laay béy Tigre colonel Sagna malien Nécorel Santaning doomu Dangu Garga de assurance ak Gora Sock palmarès yi la Tyson de am nga xam ne euh, ay mbër yu aada rek wala mbër yu baax rek la daane kon euh, Franc am na euh, am na problème ci combat bi war na ci préparer bu baax a baax a baax bu bëggee daane kii di Tyson am na problème Franc bëgguñu koo jot waaye ngeen ba mosul laal suuf ci combat bi rek la ñuy xool examen ba dina jàll Assane wala du jàll. arène national lañ jëm première journée yi daal di ñëng. kam te taxawalal nag mooy mbayti numéro 2 ak dab daan Assane. dégg la Ndeye Mbacke tey lay am ci arène nationale ci ngoon gi de prévoir na fa nag sept combats grand combat bi la dab daan war a jëflante ak mbaytin waaye ci combat préliminaire yi réparé deux dina fa daje ak teg jël euh, jeex jàmm dina fa daje ak ama bu yoof bébé Elton ñax jariñu numéro 2 Washington ak bébé Sagu dina démarrer également tournoi bi nga xam ne ni moom mooy tournoi des espoirs tournoi des espoirs boobu nga xam ne ni caatu Daouda Fall ak Yankaaw def première journée bi tey de même que Albar Albarka Kayré ak Kaw Gourdin tamit dinañ démarrer seen première journée tey foofu ci arène nationale. mu nekk journée bu ruis yi daal ñu ngi lam taxawal macha allah boole na ci jeunes yëpp combat boobu nag lu ci mën a xew rek Leewtoo TV dina fa dal dem indil leen fa lu fay ruusee. Mhm. ca noonu beneen duel de feu espoir beneen combat bi nga xam ne bëri tension lool seen signature contrat yi. Assane Wall boo ko gisee day metti tar ndax ñaari mm-hmm. mbëri ku ci nekk da ngaa xiifanteeg sa morom di dox ci diggante Ndongo Lo ak Cheikh Tidiane ki ko taxawal nag mooy Mbaye Yékini ban jour la ko taxawal le 20 juin bi ñu dëgg la Ndeye Mbacke Ninki Nanka ñu gën ko xam ci kii di Cheikh Tidiane de mu ñaa nga xam ne ni mbër moo xam ne ni kenn dootu ko présenté ci lutte simple mu war a dem nag ci lutte avec frappe war fa dajeek Ndongo Lo le juin euh, combat boobu Mbaye Yékini moo ko tëgg combat nag li ci xaw a spécial mooy que ne Cheikh Tidiane na midi ni nga nanka musul daanu ci làmb ba pare di jàkkaarloo ak mbër moo xam ne instant yi dafa am problème ndongo loo instant yi carrière am dafa am ay tax suuf ndax dafa tegale ay defet donc ku musta daanu la di daje ko xam ne nii instant yi euh, carrière am rafetul donc mu war a nekk combat boo xam ne nii kii day dem pour bañ a daanu kii war a dem relancer waat combat am dina neex trop. incha allah loolu kaay ma am ku wut fu mu fu mu fanaan. ak tëjal bunt bi du leen. du leen boole waaye kii nag ku bëggul ku ko wétteel la ak ku bëgg a dugg la day metti lool lool ci diggante ñaar ñooñu ba léegi nag gaal gi la mu teg nag mooy mise 2 millions 500 le 5 juin Assane. oui Ndeye kooku mooy Soulay Sagne euh, promoteur lutte simple la. Euh, mi ngi jëm nag terrain gaal gi le 5 juin benn mise 2 millions 500 mille la fa teg. poids lourds yi deux millions la euh, léger yi 500 000 kii ki ñu war a animé gala yi moom mooy Mbaye ak ak Kafal Fall benn duo boo xam ne ni à chaque fois bu animé benn gala animateurs yi dañ dañ koy rafetlu bu baax a baax. ca noonu nag record lañ jëm la muy xëy di xamle nag mooy ginnaaw. ba ca Pape Thialy Faye la boss de Leewtoo TV ak ki nga xamante mooy la boss Gaston production kii di Aziz Alen Ndiaye doomu gaynde Ndiaye daal na leen di jubale fee ci kër Gaston Maris Assane. dëgg la Ndeye Mbacke loolu vendredi passé la amoon ginnaaw bi ñu amee ay problème wala ñu ñàkk juboo ci ay kàddu. Euh, Aziz Ndiaye nag dox na ci jàmm ba dajale ñaari parti yëpp ci euh, gale Gasson wala kër Gasson foofu ci mars vendredi passé ñu bën fa jógee également waxtaan nan juboo nan essant yi euh, li amoon seen diggante yëpp léegi weesu na weesu nan ko ca noonu nag li ñu jeexalee journal record mooy tiis ak naqar bi dal ci nga xam ne mooy Bira Sène le président du CNG. Mm. mi ñàkk waajuram bu jigéen Assane dëgg la Ndeye Mbacke waajuram bu jigéen mi ngi tuddoon El Hadj ah, ah, Adja Adama Thior mi ngi amoon nag quatre-vingt-seize ans mu ngi gaañu démb ci Kaolack entraînement bi mi ngi am après julli takkusaan boobu lañ ko dem enterré ji ko foofu ci armeelu Kaolack yi. Euh, ñu koy jaala nag euh, rédaction Leewtoo TV ak euh, à travers son directeur président président général directeur général Pape Thialis Faye ñu ngi présenter leurs condoléances à Brassens mais également à toute la famille de la lutte di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam yàlla yërëm ko di ñaan njaboot gi des fi yàgg fi lool saraxam yàgg seen loxo ci noonu nag la ñuy jaar rek tàggatoo ak yéen Assane Waal looy tàggatoo yi di la remercier Ndeye Mbacke di remercier internetu Leewtoo TV waa Linguère Yacine Fall équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen jox di daje ba suba ak jàmm incha allah. mu lool nag loolu moo nekkoon li gën a fas ci boobu xibaar yi damay jaajëfal sama équipe bi rek Bamba mu papa bëgg naa lool I love you Bilal sama cameraman bi kontaan naa ci yow Dorba ah, Mañ Pro sama lonko Fama sama caméra moomoon bi Yacine Fall sama photographe bi kontaan naa ci yéen lool lool lool moom moo maa ne sama chauffeur bi assurance 100 pour cent dama ni bëgg bu baax noonu laay def daal leen jox dig daje doo wax ci plateau Leewtoo plateau bees waaw plateau bu bees dama fi dalal damay koy def fi ay lii nu ñu waxee ay ndëpp la wala ay dalal jàmm muy noonu plateau bu nice bi ah, sama équipe bi ñoo ko defar rien que pour leen defar leen li ngeen bëgg émission yëpp fii lay xewe incha allah neen ko xaar Leewtoo ak Ndeye Mbacke a ñàkk saa su ne fii lay amee ah, xale bi ak Leewtoo du mën a ñàkk ñoo gi ñëw